Uh-huh. seen rajo safina fm 98.2 moo leen indi lu bes tàq muy émission firi gént firi ngeen di ci ànd ak seen mbokk seen xarit mouhamad el munir ña dimanche bu nekk 23h jàpp 0h mbokk yi xam ngeen na gént dana ñëw ngir avertir sa nit ki ngir mu xam fan lay teg tànkam ci dundam dana ñëw tamit ngir di ko encourager ca la mu nekk ngir mu gën a góorgóorlu ñu koy sukkandikoo nag ci téere yi gën a mag ci wàllu firi gént te mooy ibnu sirayni ak naabilisi kon bu leen ko kenn nettali seen émission firi dana dinañ leen ko dégtal fii ci Safina FM 98.2 dimanche bu nekk 23h jàpp 0h ngeen mën a bokk ci émission bi nag bu ngeen defee 88 628 10 95 88 628 10 95 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين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 di nuyu borom kër gi di Thierno Yoro Bane di ñaan yàlla dolli ko sàmm dolli ko wér di nuyu tamit kilifa kër gi di soxna ñuma ba di ko ñaanal yàlla di nuyu mboolem ñi ñuy déglu di ko commencé ci suñu wayjur ak Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ak mbooleem waa daara ji yépp di fas yéene ñëw ak yéen nag ci émission bu bees bi waa Safina FM indil leen te mooy firi gént gannaaw ba ngeen ko xamee miin koo koo am ci seen chaîne YouTube boobu di Leral Plus TV tey ñu indil leen ko ci rajo bi incha allah di nuyu mbooleem ñi ñuy déglu ñëpp firi gént nag mbokk yi émission la boo xam ne dangeen ngeen mën a dugg ngir laaj seeni gént ñu firil leen ko ci façon boo xam ne dana dëppoo ak alquran ak xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ñu jaaree ko ci firiinu ñi nga xam ne ñooy ay boroom xam-xam yu jiitu woon ci bile xam-xam te ka ca gën siiw ñu koy wax ibnu sirayn radiyallahu anhu xam ne moom taabici la woon taabici yu mooy koo xam ne gisante na ak saxaaba yi wala dund na ak ñoom mu ngi judd ci jeexantalu xilaafa sayidina umar radiyallahu anhu ci la judd moo ibnu sirayn nekk sët ci anas mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiir gént nag di xam-xam boo xam ne xam-xam bu lislaam reconnaître la bu mu nangu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay ahadis yoo xam ne jotaay bi du mate ñu indi yépp niki nonu buñ xolé ci alquran tamit amna lu mu ci indi ca netali yonent yi nga xamne jitu won nañ sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jukki ci hadith yi rek bi ñi waja wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna idha ida az-zaman takaddarat ruya almuslimi asdaquhum ruyan asdaquhum xadisa wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arbaina juz'an min an-nubuwa ba xadis ba jeex mu ne jug jamono gént jullit dana nekk loo xam ne lu nax la doo xam ba cay dëgg ak ba ci dul dëgg waaye nañ koy xàmmee su boobaa rekk mooy ka ca gëna a dëggu gént nga xam ne lu mu gént ñaare rekk gis ko mooy ka ca gën a dëggu wax maanaam ku la dàq wax dëgg rek moo la dàq gént loo xam ne lu baax la mu teg ci ne gént koo xam ne dafa gëm yàlla maanaam ku gëm yàlla bu géntee gént googu day tegtale na moom am na cër ci ak nubuwa buñ xaajee ak nubuwa prophétie ak yonent buñ ko xaajee ñeen fukki xaaj ak juróom benn nee na moom ki gént gént gu baax gi am na ca benn mu mel ni buñ demee ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yonent yàlla ibrahim digganteem ak doomum ismaail ba nga xamee ne war na ko rendi yàlla daf ko jaarale ci gént mu ne ko yaa nay inni ya aree fil manaami anniya asbaxuka fanzur maza tare yow sama ndoom man de dañ ma wan ci nelaw ma di la rendi loo ci xalaat mu daat ne ko yaa abati faal ma tuumar sa tajiduni inchaa allahu min assabirin yow baay defal liñ la sant incha allah danga ma fekk ma bokk ci ñi nga xam ne way muñ lañ kon yonent yàlla ibrahim loole yàlla ci gént la ko ko wan te moo waral ñuy màggal tabaski ba léegi buñ jëlee yonent yàlla yusuf alayhi salaam moom presque dundam yépp gént gamu géntoon ahada achara kawkaban ya fukki biddew ak benn ya di ko sujootal ak jant bi ak weer bi nga xam ne mooy mbokkam ya waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen bi mu yaroo ci loxom boo jëlee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne njabar dal na ci kawam sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne takk nañ ko bam tëdd feebar yàlla mi ngi ko ko wanee ci gént wan ko kan moo def njabar gi ak banteen la ko def boo wax ko sax ñaata pas-pas la ci la yónnee Ammar ibnu Yaasir ak ñenn ci saxaaba yi ñu dem dindi liggéey boobu indil ko ko ci la falaxi ak naasi dal di wàcc te loola yàlla mi ko ko won ci gént kon gént ak doomu aadama ñoo ànd mënul ñàkk ba sax am na ñenn ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañuy faral di wax naan li teqale diggante rasuul ak nabi rasul mooy ku ñu yónni sant ko mu woote nabi yu nag mooy koo xam ne santuñu ko mu woote waaye xam na xam-xamu yonent am nañu ci def beneen teqat la ñu ne nabi mooy koo xam ne yàlla ci gént rek lay wax ak moom waaye rasul mooy koo xam ne yàlla day wax ak moom ci yëg ak ci gént kon muy lu mat a bàyyi xel gént lu am la firi tamit yonent bi sallallahu alayhi wa daan na toog ak saxaaba yi léeg-léeg daal leen di laaj kan moo ci am gént ma firil ko ñu wax mu firil leen siiwe woon na firi gént seydi abu bakarin siddiq radiallahu anhu seydina muhammad léeg-léeg daan na toog ak moom laaj ko gént sàngam lan lay tekki mu daal ko koy firil kon lu mat a bàyyi xel la waaye nag buñ koy firi dañ koy firi ci ñi dëppoog alquran ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu door émission bi ci bismillahi rahmani rahim di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq ak najaax yàlla musal ñu ci zallatul lisaan yàlla musal ñu min hamazati shayatin yàlla jubal suñu làmmiñ ba mbooleem lu ñu ci séentu rekk Euh, ñu am ci lu kawe suñu njort kon rek incha allah ñu fas yéene dugg ak ci émission bi bu ñu ko suñu technicien mayee incha allah ñu ubbi ligne bi permettre auditeurs yi ñu dugal seeni laaj incha allah ñu tontu ci li ñu ci yàlla yenkiwal sukkandikoo ko eh, ci référence yi ñu joxe woon insha allah kon mën ngeen dugg ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ñu ngi leen ciy xaar waaye balaa loolu ñu commencé li ci gént yi nga xam ne indaale nañ ko fi ñu njëkke ci gént bi kii mu ne dafa gént gis am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Kebe Cheikh Omar Kebe Ñang Cheikh ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar lu bëri. yal na yàlla nangu ziar. amin amin amin amin di ziar waa rajo bi Safina FM. Ah, yal na yàlla nangu ziar. Ah, di leen ñaanal yal na yàlla yokku. amin amin yalla ngeen yokku ba yëg ko amin ñang amin li ngeen bëgg ci seen xol yéen ko xam yalla naka yalla def amin ñang ñu bokku ko sàkku ñaan yi ngeen yokku ñu ñaan bu baax amin ñang ñu bokku yépp euh yëpp lu nañ rafetlu nañ émission bi bu baax yalla na yàlla continuer jërëjëf amin euh, amin waaw kay jërëjëf jërëjëf waaye dañ doon ziar rek jërëjëf yalla na yàlla nangu ziar waaw kay jërëjëf contane nañ jërëjëf neena dafa gént gis kérok yowmal qiyamah day faral sax diko ko lu bari nit ñi taxaw yàlla di àtt soxna si loolu li muy firi mooy koo xam ne gént na gis yàlla di àtte jaam yi keroog yowmal xiyaama li muy firi mooy màndute goo xam ne mi ngi ci yow ak jox goo xam ne jox nga ko xàq doomu aadama yi ku nekk nga jox ko xàqam ndax kero yowm alqiyaama yàlla day àtte wa nadaau almawasin alqista li yowm alqiyaama la tuzlamu nafsun shay'a dañuy teg balance yi daal di peese ku nekk xool sa jëf yu baax ak sa jëf yu bon ban moo wat duñu tooñ kenn kon ku ko gént tax na loolu lay firi ñaareelu gént bi kii neen dafa gént ay malaaka benn malaaka nee na malaaka bi mi ngi ñëw ci melokaanu puune nee na di wàcc ci asamaan si ñu ngi taxaw def benn sàppe sol yëre yu weex moom ak mbooloo nee na malaaka bi nag moom rek lay xool ci gént gi moom kese xoolul keneen waaye nee na mi ngi ragal di tiit ci gént gi gis malaaka bari na ay firiin waaye bu fekkee danga ko gis te ba nga ko gisee yaa ngi tiit kooku xamal ne loolu fitnatun wa inzaarun kooku day wane ne kon place boobu nga ko gis yow fitna mën na faa wàcc niki noonu tamit gis googu nga ko gis di tiit mën na nekk loo xam ne inzaar la ci yow am na luñ lay xuppe kon gént googu loolay fii ñu fàttali numéro bi rek 88 628 10 95 ngeen dugg laaj seen gént nee dafa gént yor benn feuille di ci bind alquran nee na bi muy bind moom mënul bind alquran mënul liir waaye mi ngi bind bind yu jub yu leer kooku lu baax la gént di bind alquran baax na yiw la xéewal la nee na tamit dafa gént di jàng isa jaa nasrullah di ko jàngal benn jege ñaaleem nee na mu di ko ko jàngal isa jaa nasrullahi bokk na ci saar yi nga xam ne boo ko géntee danay firi ndimbal danay firi tamit ubbeeku am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa sëñ Maniiru ñu ngi ziar. yal na yàlla nangu ziar. wax dalal jërëjëf jërëjëf Sakho. ñu ngi koy rafetlu ñu ngi lay ziar yal na yàlla nangu ziar Sakho. ñu dugg ñu dugg waa daal yal na yàlla nangu ziar jërëjëf Sakho. macha allah yow yàlla yàlla barkeel. amiin amiin. yàlla yokk xam-xam bi. amiin Sakho amiin. macha allah te barkeel jërëjëf waay. amiin amiin jërëjëf. ndimbal ak ubbeeku waaye danay tegtale tamit ne ko gént jombul ne ab digam am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo mbokk mi waaw daf mel ni rëcc na danay tegtale tamit digam jege na ndax mooy saar bi mujjee wàcc ci alquran ndax ma nga wàccoon ci fatux mag bismillah bismillah allo a ah, problème réseau mooy am côté bi waaw bismillah ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay nuyu bismillah waaw ñu ngi di kontaan ci émission bi jërëjëf di la wax nga dal ak jàmm ci kër gi mm, jërëjëf waaw ñu rafetlu tamit euh, dal gi ak yar gi. jërëjëf jërëjëf. ñu ñaan tamit émission yi émission bi ñu doon émission yi gën a ràññee. jërëjëf amin amin yàlla def ci tamit barke bu yaatu incha allah taala. amin amin jërëjëf. léegi nag xam naa di nga am ay clients yu bari ñoom sax ñoom ñoom dañuy dëkk di génn. ah waaw baax na. nga ah, xam naa. <laughs> sama technicien <laughs> incha allah dañuy beral la rek. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. aywa jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf directrice merci euh, kon dana firi loolu ki neen dafa gént nekk ci bérébu liggéeyukaayam moom ak benn collègue bu muy liggéeyandool nee na biñ toogee ba mu yàgg mu xool asamaan nee na ma nga seen ci asamaan sa ay bind yuñ bind allahu muhammad nee na ma ngi koy wan ki mu toogal naan ko xoolal nee ci kanam tuuti mu xoolaat wàllu ndeyjooram ma nga gis ci asamaan ñi bind fa ay aaya alquran nee ma ngay laaj ka mu toogal naan ko liñ bind nii lan lay firi mu ne ko liñ fi bind de mooy at mi atu naataange la atu jàmm la mbokk mi gént asamaan di xool asamaan walla nga nekk ci ak lépp loo xam ne xeetoo naag nekk ci kaw kooku cër la ci àdduna yiw la wërsëg la barke la ci ki nga xam ne moo ko gént gént gis ay bind alquran tamit kooku lu baax la yiw la ci àdduna yiw la ci àllaaxira turu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak turu yàlla tamit kazalik kon géntu googu yiw la ki nee na yaayam way juram bu jigéen dafa war a tuxu ci benn néeg nee na nag am ku ko géntal néeg ba benn bay nekk fa néeg ba mu war a tuxu kooku li muy firi mbokk mi mooy ak tumuux wal qudra ala للأهداف والإصرار نانا أمبيسيون بو خامن موم مومو أمنكو موم بروم نيك بي أك ديترميناسيون أه، بو خامن أمنكو تي أي أوبجيكتيف يو خامن فيكسي نكو تي دوندام نيكي نون تاميت أه، persévérance بو خامن أمنكو موم بروم نيك بي كون لو باخ Gent bay loolu lay firi ba léegi allo bismillah salaamaaleykum ah, waaleykum salaam soxna si waa xadi baara na nga def ñooñu si ñu lay ziar bu baax yal na yàlla nangu ziar ah di la ñaanal di ñaan yàlla émission bi yàlla ko kanam amin amin yal na yàlla ba nga yëpp am amin ñun ñëpp ñu lay déglu jërëjëf kontaan naa ci amee jënt rek incha allah dugg. incha allah jërëjëf. waa jërëjëf sëñ jërëjëf ñu ñaan mbokk yi déglu tamit ku ko dégg rek nga def ni moom boo amee gént nga woote ci 88 628 10 95 88 628 10 95. jërëjëf sëriñ Sàmb ci technique bi euh, ki nga xam ne dafa gént gis sëriñam mu jox ko ngànnaay jox ko benn pistolet nee na mu mu tiire benn rab daal di koy jam continuer na di tiire mais jamaatul ngànnaay ci gént kooku kaaraange la ci ay feebar ak ay jafe-jafe yoo xam ne dana gaar ci sa dund waaye yàlla dana la ci génne ci jafe-jafe yooyu danay firi tamit ay saafara ci ay feebar walla ay problème yoo xam ne am nga ko niki noonu tamit gént tiira bal wala ñu tiira la ko kooku xibaar la buy ñëw mun na nekk ne xibaar bu neex mun na nekk xibaar bu naqari keneen dafa gént ñu di ko dàqe ak paaka yor paaka di ko dàq ci muy daw nee na gént na ko ay yoon gént di daw moom baaxul nekk ci ay jafe-jafe la yoo xam ne ndimbalu yàlla rek moo la ci mën a génne kooku baaxul amaa nag gént paaka ñu jëmale la ko mooy bu fekkee xale bu góor moo ko gént kooku dana am soxna balaa yàgg bu fekkee xale bu jigéen moo ko gént balaa yàgg dana am boroom kër bu fekkee ki ko gént dafa ëmb bi mu koy gént dafa toll diggante kooku dana am doom ci jàmm bu fekkee élève la buy def examen wala étudiant kooku dana réussir keneen dafa gént ñi di ko maquiller nekk ci kanam gi di ko maquiller mu yàgg lool mooy yooyu jigéen ñi di def seen kanam yi nee na mu gént ko كوك لامي فيري موي نايلو مطلب تريدها مثل النكاح دنا فيري تاميت نبا سار من فيري بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حاج يالنا يالا زيار أبلي نانغ waaw abdou ñang da baax borom sisaan tv ñu ngi lay ziar <laughs> ñu ngi delu ziar naka ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax jërëjëf jërëjëf masha allah yal na gën jëm kanam insha allah jërëjëf amin amin masha allah ñu ngi teewlu bu baax a baax jërëjëf kontaan nañ ci woote bi jasakumullahu khairan nee na kon bu fekkee am na doon wut di ko yóotu balaa yàgg yàlla mën na def da ko am niki noonu tamit lu mel ni sëy bu fekkee ku bëgg borom kër la wala mi ngi woon ci yoon yàlla mën na caa def xéewal balaa yàgg nga jot ci niki noonu mën na nekk tamit nouvelle bu neex boo xam ne mi ngi ñëw ci yow mi gént lu ni mel ki neen dafa gént ki muy génnal moom ak xaritam ñu ànd di rooti ba ñu rootee ba yenu mu gis ki muy ki nga xam ne moom moo ko bëgg a takk nee na ñu root ba pare gis ko foofu mu taxaw di lekk mburu xam naa fàll sant wala gay nee na ba mu ko gisee muy lekk mburu mu may ko mu daal di gànt ba mu yàgg mu ne ko indi sax ba mu ko ko joxee mu daal nekk ko ah te danga jaay tiitar yaa ngi nii di lekk nee na mu mer daal di gedd sànni mburu bi daal di mer gént ndox ngay root ndox kooku xéewal la ndox noo ko mën di génte xéewal la bu fekkee deful dégâts ci gént gi bu fekkee laboo ca walla nuuroo ca wala ndox moo xam ne mu ngay bëbb di songu ay nit ak ay dëkkuwaay xamal ne loolu xéewal lay tekki gént gis lekk lu mel ni ki mburu rawatina kooku tamit xéewal la lu baax la lu baax la xéewal la sa diggante ak ki la ko may amaa nag sànni lekk ci gént moom baaxul kooku xéewal goo xam ne maanaam chance boo xam ne ñàkk chance la lay firi mer ci gént mooy safaanu kontaan boo géntee mer kooku mbegte muy ñëw la kon buñ xoolee sa gént daal maanaam dans l'ensemble lu baax la keneen dafa gént nekk ci oto daldi gis turu yàlla ñu bind ko nee na nag gis na gént gi ñaari yoon nga gént gis turu yàlla ci gént kooku lu baax la rawatina boo ko gisee ci air bi walla nga gis ko ci kaw foofu la gëne nee na dafa gént ki nga xam ne xale bu jigéen bi nga xam ne moom la bëgg ngir def ko soxna nee na benn sëru pàppam di ko ko dénk naan ko jàpp ko bu baax a baax ndax moom mooy sa soxna muy laajte loolu muy firi nga gént gis ki nga xam ne moom nga bëgg a takk soxna ñu lay dénk ci moom lu baax loolu lu baax la moo nga géntoon gis ko ñooyam bu fekkee intention yu baax nga am ngir def ko soxna rek xamal ne loolu xéewal la yiw la kon ba léegi ñu ngi seen émission firi gént premier numéro fii ci Safina FM Dakar 98 point 2 mën ngeen dugg ngeen joxe seen gént ñu firi leen ko ci 88 628 10 95 88 628 10 95 بين الشمائل هزة المشتاق ñu continuer rek ci gént yi nga xam ne jot nañu fee ñëwal booba ak léegi ki neen dafa gént moom ak boroom këram ñi nga xam ne maanaam moom ak boroom këram ñoo nekk waaye mu gént boroom kër gi indil ko beneen xar kanam bu miinu ak bi mu xamoon ci moom neena ci gént gi nag am na ku ne ko dañ leen dëddale yee ñaar ngir tàqale leen nee na daal mu jaaxal ko lool loolu li muy firi ka gént gis njabar walla ñu wax la dara ci wàllu njabar kooku baaxul bu fekkoon gis nga ko nag njabar gi ci boppam ci lay gën a garaaw danay firi tàqalikoo boo xam ne dana am ci diggante góor ak jigéen moo xam way dencante lañ walla nekkuñ woy dencante amaa nga gént gis sa jëkkër mere la wala am nu mu def tekkiwul ne noonu lay demee dans la vie mën na nekk tamit safaan ba seen diggante gën a neex gën a baax waaye daal li ci gént gi rek mooy wàllu njabar bi nga xam ne tudd nañ la ko ci kon nga bàyyi ci xel bu baax di saraxe tey ñaan keneen dafa gént benn góor ak benn jigéen ay nit ñu weex lañ nee na ñu ñëw seen kër fa ñu dëkk ne leen dañ leen di génne ndax daal ñoom munu yéen ñaar munu leen toppatoo kër yi ak sa boroom kër nee na ñu génn nag ànd ak bagage yi di dem nee bi muy dem am na ku mu gis ku mu xam nee na ma ngay sàkku ci moom mu wutal ko liggéey nee na kooku ne ko waaw waaye daal nee na nam ko waxee waaw daf ko niiru ne sawaru ci muy laajte nag loolu muy firi nga gént ñu génn la ci kër kooku xadaa ul xaaja la wa xusnil xaal qadaa'ul الحاجة وحسن xusnul ما نم maanaam aajo أك سيتياسي ak situation boo شانجي ne dana changé jëm ca nga gént di wut liggéey wala ngay wax lu aji ci wàllu liggéey kooku dund bu neex buy ñëw la ak taxqiqul ahdaaf ak maanaam sa ay bëgg-bëgg say mébét yoo xam ne doon nga ko mébét te danga ci jot insha allah kon gent gi gent yiw la macha allah ba léegi rek ñu xaar mbokk yi ci 88 628 10 95 88 628 10 95 والعلم إن لم تكتنفه شمائل na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko bismillah waaw ko yal na yàlla nangu ziar sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw ma xamul lu ma géntoon bismillah ma géntoon ñu nekk buntu këram Amadou Ba ministre parcelle ngeen nekk buntu kër Amadou Ba ministre parcelle waaw waaw léegi moom muy def di saraxe quoi ñu naan eh, Amadou waaj a génn waaw léegi muy saraxe ay raisin yooyu. Mhm. léegi après. mu mhm. def benn avion kayit yooyu avion kayit yi. waaw. sànni ko si kaw. moom moom moo def loolu. waaw. Mhm. muy naaw di naaw di naaw daanu si ko. avion bi daanu sa mbagg yi yow. waaw. waaw loolu la ko. d' accord jërëjëf léegi mbokk moomu mën ngeen def ni moom bu ngeen wootee ci 88 628 10 95. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق fa tabaarakallaahu mbokk moomu dégg ngeen bi ci njëkk mooy dafa gént taxaw buntu kër Amadou Ba ministre ca parcelle nee na ñu ne day waaj génn ngir bismillah bismillah waaw soxna si yal yàlla nangu ziar man dama bismillah dama oh, rëcc na waaw ñu continuer ci géntam gi rekk mu génn di saraxe neena après mu defar benn avion ma ngi ko defaree ci kayit sànni ko muy naaw gént gis kilifa diine walla kilifa àdduna ci gént kooku yiw lay firi ci ki ko gént réussite lay firi ci moom ni ki noonu tamit bayra lay firi boo xam ne dana ñëw ndax ka mu gént ku siiw ku ñépp xam la beneen bi mooy gént sarax gis sarax Euh, mooy ay musiba ak ay balaa yu naroon ñëw te yàlla dana la ci defal protection yow mi ko gént ak ki nga gis mu di ko saraxe gént gis avion buñ defar ci kayit muy naaw ci kaw jaww ji avion de manière générale ak lu xeetoog moom kooku tamit réussite la ndax waxoon nañ ko karaw keroog euh, ci ci gént gi ci ginnaaw lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu kawe rek kooku lu baax la waaye nag li ci ñuul mooy daanu gi nga xam ne daanu na ko loolu kon la muy firi mooy réussite boo xam ne la cay topp mooy euh, euh, échec kon ñu bàyyi ci xel mbokk mi sa gént kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci takk vingt 88 628 10 95 ngeen joxe seen gént incha allah ñu laaye leen ci biir li ñu ci yàlla laaye biir ba léegi rek ñu leen xaar ci 88 628 10 95 ñu nekk ci seen premier numéro euh, émission firi gént di nuyu bu baax suñu mag ji abdou fati ñang di ko ziar di nuyu waat suñu sëriñ suñu wasila suñu lépp sidi cheikh ahmad tidiane ñang di ñaanan yàlla guddal fan wi yokku wér gi di nuyu suñu mag suñu sëriñ suñu royu royukaay sayidna umar ñag bismillah waaw maa dugaan ma ne waaw waaw ci sama mbagg yi la ñëw takk waa avion bi waaw mais daanugul ci suuf waaw daanugul ci suuf waaw mais loolu lay firi ay pitax ak yooyu ay pitax yooyu yëpp doon na ko sarax waaw mooy ñu topp si moom quoi moo ñoo doon def sarax boobu quoi après muy waaj a génn ñoom ñoo ko doon defal sarax yi waaw waaw waaw sarax loolu lay firi day jeñ ay musiba ak ay balaa yu nar a ñëw amaan ak avion bi mu daanu ci suuf ak mu daanu ci mbagg yëpp comme arrêté ne naaw ba wadd rek loolu moom nekkul loo xam ne lu lu baax la 88 628 10 95 ngeen joxe seen gént ñu laay leen ci biir ñu ngi nuyu tamit imaam Mouhamadul Amin ña di ko ziyaar maa ngi nuyu Aïcha Mounir di nuyu Mouhamadul Bachir di nuyu soxna Safiyatu Ñang soxna faama soxna alima bismillah kooku rëcc na kon ba léegi rek wàllu gént dafa nekk loo xam ne lu xaw a complexe la mën nga gént lu raglu nga yaakaar ne lii moom bismillah waaw waaw bismillah ah, léegi oncle bi oncle bi dafa noir ba pare am ay jaune mu nekk noir ak jaune daal jaune noir. Mhm. comme man dama ragal oncle même ci gént gi dama ko doon daw. ñu ne ma mhm. dee na ñu may jël lu mel ni genre peeru mbalit seen ko. Mhm. ñu ma ñu ko sànni bi oncle bi dee na bul dawaat. benn instant ma ñëw ba taxaw fi oncle bi nekkoon. di xaar ak dawaat ñu ne ma loolu malade arrière ñu ne ma yow ñu ko déggee la. Mhm. nag affaire bi jaaxal na yàq. mën mhm. ma ngi ciy ñëw léegi incha allah. 88 628 10 95 88 628 10 95 ngeen dugg ci Safina FM ñu firil seen gént incha allah gént unk unk bokk na ci. yii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fu ngeen ko gis ngeen da ngeen ko rey ci xadis boo xam ne Aïcha moo ko nettali radiyallahu anha yaakaar naa moom la ñuy wax wasaxa ci arab nekk na loo xam ne tamit fu ko doom aadama gis dana tiit ba tax na noonu la demee ci gént boo ko gisee xamal ne ay tiitaange dana ñëw ci sa dund yoo xam ne yàlla mën na ci def sutura mu dem waaye daal ay tiitaange la yoo xam ne dana gaar ci sa dund boo ko reyee nag ci gént gi xëy na tiitaange yooyu mën na bañ a garaaw ak problème yi nga xam ne moom lay indiwaale ñu bàyyi ci xel bu baax kon gént unk mbokk mi soxna si loolu lay firi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi yal na yàlla nangu ziyaar rafet lu xam-xam bi jërëjëf ci Abdoul Aziz Thierno Souleymane Diallo lañ koy wax. Abdoul Aziz dalal jàmm. yow na nga man maa ngi tudd Mouhamadul Mounir Niang. est-ce que Mouhamadul Mounir. Mm-hmm. kon yaa ngi leeral foofu. Uh, incha allah amin <laughs> nuyul ma bu dee Samba waa mi ngi lay dégg. man ñaari gént laa am. fan mm. yii laa gént fan yii. bismillah. nga baal ma si wolof bi na macha allah kaana. amul solo. bi si njëkk damaa gént uh, Thierno Sansa. di zaawee Alaji Malick mm. man ak ak sama benn rak mm. ñu julli ci biir zaawee Alaji Malick mm. mu ne sama rakk bi mu likaam sama rakk bi mu ngi sol benn yére bu weex bi ci des ci benn benn guddi bi waaw ma génte suñ suñu papa gaañu na bu yàgg nag mu jox ñu ceeb dafa mel na dafa am ñànkataa man ak moom ñu koy lekk waaw bi ma waxee sama rakk bi nag li ma xalaatoon moom it moom loolu la xalaat. Hmm, hmm. kan moo leen jox ceeb bi ñëpp jàng nañu alquran. allo. kan moo jox ceeb bi ngeen di ko lekk. suñu papa suñu papa. waaw. Hmm. léegi mu ne moom mu jël xaaju kaw bi. man ma jël xaaju suuf si kaamil bi ñu ñu jàng ñu ñaanal ko. waaw loolu lañ doon doon. góor gi góor gi mi ngi mi ngi dund wala. gaañu na bu yàgg. ah ndeysaan. Mhm. Eh, ku ku mënoon alquran la. Fuuta Tooro ñu. macha allah. macha allah ku mënoon alquran. yal na yàlla yokk yërmandem ci moom xarit maam Abdou la woon. Mm, ah macha allah. moo tax mu tuddee ma maam Abdou. est-ce que est-ce que. waaw bare gént tamit ci Thierno Samassa. ñu mm-hmm. ngi julli ànd ak moom. ci zaawee alxaj Maalik. léegi mm-hmm. waaw mu ne sama rakk bi mu lëkk am. Mm-hmm, Eh, macha allah kaana maa ngi lu waxtaan bi ñun xam-xam rek moo ñu soxal. ndeysaan jërëjëf. Eh, Abdoulaye Diallo Wakaam bu la neexee nga ne borom téere yi. borom téere bi. <laughs> borom téere yi. borom téere yi loolu lañ may woowee. jërëjëf Abdoulaye Diallo Wakaam borom téere alquran. waa est-ce que jërëjëf Abdoulaye Aziz Diallo Wakaam ñu ngi lay sant di la gërëm di ne 88 628 10 95 ngeen di duggee ci émission bi ñu ñëw ci ñaari géntam yooyu léegi incha allah. تطربني الخلال كريمة قرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق macha allah sëriñ Abdoul Aziz Diallo Wakaam sa gént gi nga gis Thierno Samou sa nitu yàlla bu mag boobu yàlla na ko yàlla yàggal yàlla yokk fan bu baax muy julli ci zaawiya Cheikhul Hadj Malick radiyallahu anhu mu wax sa rakk na gént gis kilifa diine gu ni toll muy julli ci béréb bu ni toll ànd ak yow ak keneen kooku yiw la ci àdduna yiw la ci àllaaxira précisé woo julli gi gan julli la nag mais julli moom de manière général boo ko géntee bu fekkoon bi nga koy gént yaa ngi ci ay xat-xat xamal ne xat-xat yooyu da ci génn niki noonu tamit danay firi na ko aaya bi waxee inna salaata bu fekkee julli farata la inna salaata tanhi anil fahshaai wal munkar dana firi ne kon yow mi gént di julli ak ña nga àndal yàlla dina leen yenkiwal xéewal leen ngeen gën a sàmm gën a moytu ñaawteef bu dee julli gi julli sunna la day firi aaya ba rek laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma alaaxir fi yàlla di waxee na yonent bi laa def ci yéen muy royukaay ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar na bés penc kon boo géntee di julli julli goo xam ne julli sunna la lu demee ni ki julli korite wala tabaski wala nawafil yi nga xam ne ay sunan lañ kon day tekki na yow danga taxawal sunna danga nga gën a roy ci Seydina Muhammad bu fekkee julli julli coobarewu kese la nag su boobaa mooy ay njàqare lay dàq ak ay jaaxle nga bàyyi ci xel bu baax a baax ñett yooyu moo ci am euh, beneen gént bi maanaam gént di liqaam kooku tamit lu baax la euh, beneen gént bi nga ne da gént seen wayjur bi nga xam ne génn na àdduna mu leen di jox lekk gént gis lekk da ci gént baax na gént gis ku génn àdduna tam nga gis ko ci melokaan bu rafet kooku tamit baax na day wane ne mi ngi ci jàmm waaye nag bu fekkoon bokk ngeen ak moom lekk loolu nekkul loo xam ne lu gën la waaye comme da leen jox ngeen lekk rek kooku lu baax la jombul ne kon ñaan yi nga xam ne yéeneen ko koy ñaanal ma nga koy fekki niki noonu gént di jàng alxuraan mu ne leen kii na jàng xaaju kaw bi kii na jàng xaaju suuf bi kooku yiw la xéewal la barke la te itamit mun na nekk tegtal bu mu leen jox ngir ngeen wàcceel ko alquran ñaanal ko ci kon sëñ abdul aziz jàll wakaam sa gént macha allah yàlla na nekk lépp rek di yiw mu mel ni kon waxtu bi mi ngi jege si mi ngi xëcc jëm ci jeex euh, kon lii moo nekkoon seen premier numéro fii gént fii ci safina fm 98 point 2 nii lañ koy baaxoo di def incha allah ci dimanche bu nekk bu 23h jotee ba 0h euh, ñu toog fi ngir laayante biir ak yéen ci seeni gént ngeen mën a woote ci numéro boobu ngir mën ñu ko jox euh, di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne dugg nañ woote nañ rawatina waa daara ji ak ñi nga xam ne dugg nañ tamit laaj seen gént di ñaan yàlla yàlla def yiw yàlla def xéewal ci réew mi yàlla yokk rajo bi jëmale ko kanam yàlla yokk tamit borom kër gi macha allah Thierno Yoro Bane yàlla yokku ki nga xam ne mooy suñu directrice muy soxna ñuma ba di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Serigne As sama garde bi ma àndal euh, di wax ne wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin ba dimanche ak jàmm والندى بين الشمائل هزة المشتاق